Thiam dalal te leen jàmm ci li gën a fës cotti yëglekaay yi ñu commencé kook enquête yéen mi des ci assise nationale yi nga xamante ni rapport ya jébbal nañ ko président de la république ni ki démb yéen bi dañu xamal ni bëri na ci ay problème yoo xamante ni nag bëgg nañ koo jubbanti nekk ci suñu wàllu justice bii nag exposé nañ ko président de la république bokk na ci nag Sénégal gii nombre avocat yi ni ñu néewee ndax boo amee ab seetlu magistrat ñu ngi toll ci 530 magistrat ci Sénégal waaye avocat yi ñu ngi toll ci 439 te booy xool ci diwaanu Fatick amul ay avocat amul ay avocat Sédhiou amul ay avocat Matam amul ay avocat bëri na ci ay région yoo xamante ni laa la wax amul benn avocat boo xamante nii dana mën a taxawu nag askan ba fa nekkee yéenekaay bi yemul ci loolu ndaxte mu ni rapportu assises nationales yi nag fi mu toll nii mu ngi ci loxoy président de la république lépp nag fi mu toll nii yaakaar gi teg nañ ko ci loxo président de la république ngir mu indi ci ay jubbanti moom président de la république nag Bassirou Diomaye Diakhar fay xamal na kilifa yi nekkoon ci commission yi ne leen lépp lu ñu mën a indi comme solution dinañ ko def fi seeni proposition seen waxtaan bi tamit tudd nañ fa autorité de la justice ak cour constitutionnelle bi nga xam ne moom la ñuy ne moo nar a remplacer nag conseil constitutionnel ba ci juge des libertés ak mbiru détention yi lii bokk na ci ponk yi nga xamante ni moo gën a fës ci rapport bi libération yéenekaay moom desuwaat ci scandale bu rëy bi nga xamante ni ñoo ngi koy dégg ci ab marché gré à gré bu ñeel nag building administratif bii ñu duppee Mamadou Dia marché marché public bi ci boppam laa la wax nanguwuñu tey nanguwuñu ëllëg laa la wax marché bi te liy njig di njaag nag gouvernement bi fi jógee moom mooy njaag gouvernement wu président Macky Sall bi ci boppam laa la wax ñoo def jëf ji ni mel marché gré à gré bii ñeel nag building administratif bi ñetti at dong nag la concerné woon te moo tax nag ba léegi sii laa la wax building administratif bi ba léegi noppeegul jafe-jafe ya ca nekk nag lépp yéenekaay bi desuwaat na ci les éco yéenekaay moom desuwaat ci jafe-jafe ya nekk ca assemblée nationale président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar bii di Abdou yaatoo wax tamit ci situation situation bi nga xam ne moom la suñu gouvernement bi am mu jàpp ne téeméeri fan yi nga xamante ni moom la état Sénégal gi def ci réew mi duo président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko defuñ lu dul lajj rek par rapport ak soxla askan bi Abdou Mbow di xam ne ci biir yéenekaay bi ne ci téeméeri fan yi laa wax liñ ci seetlu daal moo di amuñu expérience xamuñu ba léegi si fan la teg seen tànk dañuy tatone ci ay procédures yu bari presque booy xool moo waraloon nag assises nationales yi ni ki démb nag la ñu jébbal président de la république rapport yi nga xamante ni moo ñeel travaux yi amoon ca jam ñaajo moom président de la république xam naa tamit yaakaar bi ñu teg ci sama ndodd donc na seen xel dal lépp lu ñu war a def dinañ ko def rapport yi tamit nekkul rapport yoo xam ne dinañ koy bàyyi ci tiroir yi le point actuel soit ci rapport yi na mu gën a yaatoo tey xam ni bu fekkee ne am magistrature li ni mel na président Bassirou Diomaye Faye lim ci wax dafa leer mën a gu cee àddu jamono ji ndaxte ñoom magistrat yi seen jëmi bopp sax seeni proposition nag wuute na lool ak ñenn ñi li ñu bëgg te moo di président de la république génn ci conseil supérieur de la magistrature lii moo tax na bëgguma gaaw jël décision mën naa génn ci conseil de la magistrature comme mën naa faa des fonk boobu daal ñeel conseil supérieur de la magistrature pour l'instant dama ciy neutre ba waxtaanee ko ba noppi waaye ak lu ci mën ci am lépp loo xamante ni conclusion la ñeel nag assises yi danañ ko matérialiser finance ko bu sunu suñu bi nag daal di jubbantiku laa tribune yéene kaay li ñu war a def alerte kay jamono ji moo di ndaw yi nga xam ne ba léegi si ñu ngi dem ci barsak barsak gi yéene kaay bi ñu xamal ne am na benn gaal goo xamante ni mu ngi teeree ji sa Saint-Louis juróom fukki ndaw ñoo ci nekkoon dañoo bëggoon a dem ci bitim réew moo tax fi mu ni état bu Sénégal am na yaakaar bu rëy bu nekk ci ndoddam ndax ndaw ñi ñàkk yaakaar kese nag moo tax ñuy dem ci bitim réew di ko jaaree ci gaal il faut que nag état bu Sénégal gii di leen accompagner ci seeni projet rawatina nag jàppale secteur informel bi ak secteur privé bi ndax ñoom ndaw ñi bu leen wóoree ne Sénégal gi am na lu ñu fi mën a téye duñu fi bàyyi seen liggéey nag di wuti ji barsak gi source a def taxaw seetlu ci assemblée nationale ak rencontre bi nga xamante ni moo ñeeloon président groupe parlementaire yi bu wàllu Sénégal bu yeewee askan bi ak bu bennoo bokk yaakaar ñu bëri doon lam-laamee lan moo nekkoon seen waxtaan yéenekaay bi nag dellusiwaat na ci na mu gën yaatoo tañuy xamal ni ndekete ñoom président groupe parlementaire waxtaan mooy bëgg a déggoo nag ci benn ponk te mooy bés bu ñëw ci assemblée nationale def déclaration de politique générale am wala boog dañuy càmbaraat règlement intérieur bu assemblée nationale bii cat ba cat lii moo wundu woon ni ki barki démb nag seen waxtaan ci bureau bu Abdou Mbow président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ci assemblée nationale ñoom président groupe parlementaire yi nag li ñu déggoo mooy kenn ku ci nekk demaat ci sa groupe parlementaire waxtaan ak say ñoñ bu ñu waxtaanee ci seen yi groupe ba noppi la ñu jël comme décision danañu dajeewaat su boobaa ñu xam ndax dañuy jël règlement intérieur bi dugal ci disposition bi permettre premier ministre ñëw def déclaration de politique générale généralam wala boog dañuy tas carrément règlement intérieur bi càmbaraat ko du début à la fin ca wet ga bi desuwaat ci rapport bi nga xamante ni moo ñeel assises nationales yi ñu doon càmbar sunu justice bi ak rëq-rëq yi nga xamante ni moo ci nekk rapport ba nag fi mu toll jébbal nañ ko président de la république moom président Bassirou Diomaye Faye nag lim leen waatal mooy lépp lu tukkee ci rapport yi nag dinañ ko jéem a amu ci benn ci dialogue bi mi ngi xamle ne président de la république lim ñu wax lu leer la li ñu càmbar ci assise bi yépp nag li ci ëpp dinañ ko appliquer ndax sunu justice su réew nag askan bi ci boppam dañ ko war a yëg xam ni muy doxalee waaye tamit yëg ni muy doxee lii quotidien li jaaxal ñëpp kay mu di nii wii nii noo bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye yëkkati na ko nee na du àddu pour l'instant di leeral est-ce que dafay génn ci conseil supérieur de la magistrature waaw wala déet moom président Bassirou Diomaye Faye mooy sama décision ferme moom dinañ ko xam ci kanam ndax il faut que ma consulter nag magistrat yi ndax dernièrement ñoom magistrat magistrat yi li ñu bëgg mooy président de la république comme le ministre de la justice ñu des ci conseil supérieur de la magistrature comme déggoo amagul foofu nag ñoom ñi nga xam ne ñooy nday bi léegi dinaa waxtaan ak ñoom lu ñu tënk nag su boobaa loolu laay def moo tax parewuma pour génn parewuma tamit pour toog ci conseil supérieur de la magistrature dama neutre pour l'instant ci rapport bi nga xamante ni indi lañ ma ko ci sama kanam surtout nag aspect bi ñeel na conseil supérieur de la magistrature waaye lu jar bàyyi xel la daal magistrat seen point de vue ak li tax ñu daal di ngoy ci ponk boobu loolu tamit jar a bàyyi xel la lim leen waatal tamit moom président de la république mooy rapport mu def ay révélation yu rëy nag ci président Macky mi nga xam ne moom jàpp na ne lu dul ñett yoon laa la wax nguuru Macky tànt nañu pour jël bakkanu Ousmane Sonko moom maire bu Kër Massar Sud bii nag di xamle ci biir yéenekaay bi ne pièce bu njëkk bi ñu bëggoon a jëlee nag bakkanu Ousmane Sonko ci pneu oto ya lañ ko defoon Ousmane Sonko di jóge ko Casamance bi ñëw ndakaaru njaay ñu yàq pneu otoom yi ba oto ba mujjee def accident ca la caméramanu jot na tv bi daal mujjee ñàkk bakkanam ñaareelu tentative d'assassinat bi nga xamante ne nii nguuru Macky Sall defoon nan ko bokkoon na ci sabote gi ñu doon sabote nag oto Ousmane Sonko ko defee def nañ beneen tentative bi nga xamante ni tamit def nañ ko mooy bi Ousmane Sonko nekkee en grève de la faim ci prison bii moom Bilal Diatta mu ngi xamle ne Ousmane en commun waaye nguur gi def ko seetaanoon lépp ngir rek mu daal di fay jaaree ñàkk bakkanam jëf ju bon ji nga xamante ni nguuru président Macky Sall doon nañ ko def moom bi daal jaata dem na sax ba ci xamle ne dañ doon jënd ay la wax pour ñu bàyyi Ousmane Sonko man mii victime laa ci Marème Faye Sall di jabaru président Macky Sall ci boppam laa la wax yëkkati woon na lu tolloog 1 milliard 800 millions pour jënd ma pour rek ma daal di trahir Ousmane Sonko bépp ojo boo xamante ni envoyé woon na ma ko man Bilal jaata audio yi mu ngi ci man ba tey jii may wax ak yéen te un jour viendra commencé ubbi ay enquête am audio yooyu dinaa ko teg ci table bi dem na tamit bay xamle ne gis nga fondation servir le Sénégal bu Marième Faye Sall nekkutoon fondation servir le Sénégal de fondation séddu le Sénégal la xaalisu Sénégal bi yépp ñoom pasar pasaree nañ ko léefa yéeni kaay moom def taxaw seetlu ci kàddu yu rëy yi nga xamante ni Ismaïla Madior Fall yëkkati na ko ñeel disparition Didier Badji ak Fulbert Sambou lii mujjee fi ni ki barki démb ba mu amoon ci Sat TV te la Ismaïla Madior Fall doon xamle ne disparition Didier Badji ak bokk na ci dossier yi yi nga xamante ni moo ñeel amnistie bi ndax jàpp nañ ne lii weesuwul sabotage ak ñàkkal fayda dossier bi nga xamante ni ba léegi si kenn xamu ci lu leer Aminata Touré moom di xam ne ci biir yéenekaay bi ne kàddu yi mu yëkkati mooy wane moom Ismaïla Madior Fall am na lu mu xam laa la wax ci dossier bi ni mel taman li ma bëgg a xam ba xam moo di disparition Didier Badji ak Fulbert Sambou ban rapport la am ak événement politique yi nga xamante ci ni moo fi amoon ci mars 2021 man lii laa bëgg a xam te comme que moom dem na ba ci yëy yàbbi bés bu justice commencé def liggéeyam moom Ismaïla Madior Fall ku ko topp mu def ci yeneen révélation Pape Alé feelu Mimi ay e xam le ne kàddu yi Ismaïla Madior Fall mi yëkkati amul kàddu yu ko gën a garaaw ci kaw suuf ndax ñaari gendarme yi nga xam ne ba léegi kenn tegu leen bët seen dossier bi ñu koy lijjanti pare guñu moom muy wax wax ju rëy mel na kuy nëpp-nëppal dossier bi lii war naa tax yoon daal di jël dossier bi au kenn gënu koo nekk acteur ci mbir yi ni na fi nag ministre de la justice sa kàddoom yi mu yëkkati nag dafay gën a dëggal dong nag njorti gi askan bii njortu ne luy njig di njàng gouvernement bi fi nekkoon na ñoom ñooy njàkk Fadilou Keita mi nga xamante ni bokk na ci victime bi ñu tëjoon ci biir kaso bi ñeel dossier Didier Badji ak Fulbert Sambou moom li ba tey jii ko tëjuñu ko kon nag il faut que justice def ni ne fi mu nii ku nekk mu ngi koy attaqué Ismaïla Madior Fall wax na ni ki démb lu muy jàpp-jàpp génnaan na def benn muy def communication ndax préparé wutoon nag point boobu ne dinañ ko waxtaane lii moo tax mu daal di juum ci analyse am jàppale na dossier bii ni mel mën nañ koo classé ci dossier amnistie yi alors que en réalité amul benn rapport ak amnistie bi moom Ismaïla Madior Fall di xam le ci biir yéenekaay bi ne moo ngi tuub di jéggalu ci kàddoom yi ni mel l'observateur na justice bi daal moo mën a def liggéeyam justice bi ni mel nag pour jubbanti ko rapport ba fi mu toll nii teg nañ ko ci loxo président de la république ngir mu daal mu am ndey mu amul ndey day tëddee ñaaxaanaa yi recommandation bokk na ci moom président de la république mu génn ci conseil supérieur de la magistrature donte ponk boobu nee na dina ko togg ba mu ñor su boobaa dina xam ndax génnam ci conseil supérieur de la magistrature farata la wala du farata en tout cas yéenekaay bi desuwaat na ci ci musiba mbaba kumba gi amoon ci diwaanu Louga xale bi ñu doon fecciloo di wane ay awra jamono ji ñuy wax ak yéen nag takk der yi jàpp nañ ci juróom-ñaari nit yoo xamante ni ñoo ngi ca kaso ba nag def na ci taxaw seetlu di xamle ne Sénégal ci boppam li ñu xewal lañ war a arrêté jël ay xale di leen exposé di leen ñàkkaloo fayda ak a ñàkkaloo kersa ñàkkaloo leen jomba léegi si def yaramu neen defuñ ko muy dara lii gis nga buñ ko arrêté wul waxuma la ay sabar yu mel nii sax waaye leneen mën naa xew ci penc mi yoon nag commencé na cee def liggéeyam juróom-ñaari nit pour l'instant jàpp nañ leen si ñuy xaar fan la wànnante li mu jékki bëtam <laughs> mbokk yi continué di abonné ko bàyyi xel seen YouTube bi di Mourchid TV tey gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar yéen doog jàmm suba ak Allah